bu seddaay bi jubsee ku nekk daal di ut pexe ngir tàngal yaramam ñi nga xamante nag dañuy jëfandikoo lii di cigarette ñoom dañuy gën a jënd cigarette ku daan tux benn da ngay jël ñett wala ñeent bu ñu sukkandikoo nag ci ay kaddu ñi nga xamante ni dañuy jëfandikoo cigarette maanaam ay fumeur ñoom nee nañu période seddaay bi dañuy gën a am envie di bëgg a tux donte sax nangu nañu ni du leen gënal ndaxte seeni dépense day gën a yokk waaw loolu moom euh, mun naa ne ku nekk ak sa sa sensation lu ngay sentir par rapport euh, seddaa bi parce que man par exemple man euh, plus que may tux da daf may réchauffé du tout quoi mooy maanaam su ma seddee bu baax a baax tamay am envie tux waaw man noonu laay sentir quoi su ma seddee bu baax a ma koy gën a yëg rek damay bëgg ñu wàcc ñu tux benn tabac rek c'est bon. ah man avant ba ma doon tox kay période seddaay bi sooy tox lu bari nii nii dalay day genre wàññi stress yokk la genre chauffage lay doon quoi genre sa yaram bañ yeg yëg seddaay bi pour dàq seddaay la rek. man du ma tuxkat quoi mais mën naa wax sama avis personnel quoi à savoir que peut être seddaay bi su ñëwee bon xëy na gars yi le fait que mu sedd de trop moo tax moo leen poussé ñuy tux de trop quoi pour seddaay bi wàññeeku si moom ko ci ñoom quoi waaw man li ma jàpp ne moom moo ko waral mooy nit ñi dañuy tuux parce que des fois day sedd de te aussi gars yi pour pour se débarrasser aussi du stress day causer encore euh, ñeneen ñi di tux waaw. waaw mais des fois stress bi encore da da ciy causer le de trop te aussi stress bi bi aussi day toll foo xam ne seddaay bi day toll foo xam ne aussi affaire bi day set ba dootoo mun a euh, tenir sa bopp des fois boo ci boo tuxee aussi mun na laa dimbale aussi seddaay bi day wàññeeku si yow. non bu tànkee jëjë damay wàññi wax dëgg fa la damay damay wàññi quoi des matin bi damay tux benn su ma añee ma benn. Euh, sama ay ngoon la laay faral di gën a tux mais bëccëg nii moom ak tàngaay bi moom day damay sonal quoi damay gën a wàññi lu bëri mais seddaay bi nii moom plus que mi gën a sedd plus que may gam gën a am envie di tux tàngaay soo si toog da lay da ngay énervé cigarette si du saf dara genre yooyu la quoi bu période seddaay bi si ngay gën a am envie tux wax dëgg fa yàlla moom ko xam ne commencé gul tux man je conseille carrément les gens à ne pas fumier parce que cigare moom baaxul wax dëgg fa yàlla nag baax ma damay tux dugg naa si te instant maa e koy regretté meex ma maa si bëgg a génne mais instant damay essayé toog une journée sans fumier mais daf may sonal day mel ni boo toogee une journée sans manger da ngay mel ni ku xiif da ngay am envie mais soo gëmulee rek soo maîtriser soo am la maîtriser da ngay naan baa ma dem tux benn boo boo xëccee benn day neex dangay ngay jëndaat encore c'est comme ça waaw affaire moom dafa dafa aw doy daf ma doon gêner en fait parce que da ngay dem ba solo bëgg dugg si nit ñi xet geeg genre yooyu noonu ak euh, santé beeg nga ba ak foie bi foie bi quoi da ngay toll foo xam ne foo nga repentir bëgg delloo sa bop si yàlla saa nga ñun jeunes yi en fait da ngay dem ba da ngay toog benn instant dañuy tër ci kër ci nii rek dem ba ak sa bëgg rapproché wu sa diine mënut a bokk ànd ak yenn yi soo demee ba xamatoo foo jëm ngay delluwaat soo delluwaatee tuuti foog nga baay yu bari yoo xam ne tey du ko jar quoi. ñu xam nañ li leen di poussé ñuy ñuy tox ko en waaw loolu seen seen seen dundul bopp la ko xëy na peut-être man am na li may def te am na aussi euh, li ma li tax ma koy def quoi ñoom xëy na aussi peut-être. daa am li leen ci poussé quoi boo tax ñu koy def quoi moo tax du ma leen conseillé peut être ñu bàyyi ko quoi en fait parce que xëy dara tax ñu koy def quoi en fait xëy na seen sago moo tax ñuy tux quoi en fait parce que des fois boo gisee paquet cigarette yi dañ ciy def euh, abus dangereux pour la santé. qu'il se, se, débarrasser maintenant de, de, pour, pour, contacter le numéro tel tel. Euh, alors que ce numéro-là est gratuit. On ne paye rien du tout. Euh, tout parce que il y a des des fois tux bi dalay jox cancer des poumons surtout boo xam ne mun na laa indil ay feebar yu bëri bëri bëri bëri bëri. tuxkat ak kudul tux ñoom ñëpp ñu d'accord ci benn mbir maanaam cigarette baaxul. ñoom ñi di tux sax ñu bëri ci ñoom bëgg nañu bàyyi cigarette. te conseillé wu ñu benn yoon. nit di commencer di tux. parce que ñu bëri ci ñoom. rëcc nañu lool lu tax ñu commencer di tux. cigarette nag daal bokk ci ay mbir yi nga xamante ni ñu ngi euh, rey ay nit ñu bëri ci àddina bi tamit di causer ay maladies chroniques yi dul wér fii ci Sénégal nag donte ndaw ñi jël nañu conscience que cigarette baaxul benn yoon waaye terewul ñenn ñi di wéy di jëfandikoo li nga xamante ni mooy di cigarette